te day xajal wërsëg ca 2000 wala 99 laa xamante woon ak président Macky Sall ba li fi am yëpp am fi mu nekk ak ñuul damay njëkk a félicité président Macky Sall ba pare sunu xarit la ñuul waa Soleil Levant sunu xarit la te loolu duñ ko nëbbu fenn man ma dem ci benn manifestation du ma dugg benn bureau ñaanuma kenn wayaanuma kenn laajuma kenn man Sanékh sama loxo ca kaw liggéey rek laa xam bureau président Macky Sall rek laa xam man madame Gueye li muy def depuis 2008 di femme émergent dama bëgg yéen waa Diourbel ñu muus ngeen dëkk boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké teg na fi tànkam kon du dëkku cuune